comme aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki bitim réew mbokki Ndakaaru xiwal tey ñëw na nekk foofee ca Midina ne fa faax ne dajji ne jant ni weer dibiteeri la mbote daal moo ñëw foofee nga xam ne moom moo di ca Midina di 6 angle 11 mbokk mi yow mi nga xam ne da nga bëgg ay xeeti dibi yu baax moo xam dibi ginaar la wala dibi ndawal wala li nga xam ne moom moo di poisson ba ci ay miswi yu baax yu sap-sap lool te neex a lekk demal nga xam ne moom moo di ca la mbote nekk foofee ca Midina di 6 angle 11 mbokk mi wootee ci numéro bi 33 842 42 11 mbaa nga woote ci 77 240 66 45 mbaa nga woote ci 77 642 03 52 dibiteer yi la mboote nekk faak équipe bu am solo équipe bu extraordinaire équipe bu magnifique équipe bu exceptionnelle bu gëm seen bopp nangoo liggéey te man li ñuy def ay miswi yu am solo ay dibi yu am solo yoo xam ne ni dañu koy defar yu saf sàpp neex lool te boo koy lekk doo toog doo taxaw da ngay nekk ci diggante saf ak sàpp dibiteer yi la mboote daal mi ngi foofee nga xam ne moom moo di ca Médina rue six angle onze seeran ba di ki nga xam ne ni moom moo di Cheikh Fall tibiteer yi la mbote mooy ñaanal réewum Sénégal jàmm ak salaam jërëgéen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim wa am solo les combats royal Modou Lo Ama ñaar ñooñu day daañu jàkkaarloog li nga xam ni moom moo di bi ci seen combat boobu ñu jëm waaye 9 moom Ama Baldé mu am fukki at yaar ci li nga xam ni moom moo lamb ji waaye ki nga xam moom moo ikiri Ndakaaru ak ikiri Fass ñoom ñooñu day dafa mel ni bokk nañu ndey ak baay booloo doon waaye ki nga xam ne nii moom moo di Kati Diop daal mooy nekk li nga xam ne nii moom moo di coach principal ba waaye ki li nga xam ne nii ci la mu xam de as waaye vers une élection moom moo di li moom moo di gi ñu génn ak korite gi koor gi ak li nga ni moom moo di ba tax na daal ñu jàpp moom moo di boobu amewul nam waroon a ba tey ci xatum làmb niñ koy defee fekk fa exemple yoo am solo bokk ci Franc ak ki nga ni moom moo di bu ñu demee fi nga xam ni moom moo ci xatum record fekk nañ fa ki nga ni moom moo di Doudou Diagne moom itam ci ay explication yu am solo ak ki nga Dakar ba dafa waroon a ki nga xam ne ni moom moo di président wu bi mu tànnal boppam ay niti boppam yoo xam ne ni mën naa liggéeyandoo ak ñoom yéen ñi koy sifur lambu actualité lambu te di ko sifur ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne bu ma topp waaye ku jooy dëpp la ko dale Thiès xombal bambayal tundangal mag sew kabak la ñaar kër daam ak kër saer jàllundul patar kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kol dalak daaru xaboor muy boo bokkam Bawal TV bu liggéeyul ci làmb bu nekk wàcc nab àndam te wolof yaay dafay wax ne ku wàcc sab ànd ànd boo dem fekk fa borom bu ne faax Bawal TV ak actualité la